wa kulla muxdasatin bidca wa kulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar mbokk jullit yi tomb bi ñuy faral di wax bi ñuy waxtaane tey incha allah muy yan sabab mooy yi nga xam ne day dox diggante nit ki ak nangu dëgg day tax mu bañ dëgg ah yooyu defe naa ne jaadu na jullit yi léeg-léeg ñu toog jàngat ko ci seen diggante ba xam lu tax am na yum leen di jëriñ la ci ëpp solo mooy ñu xam ne loolu kon ay feebar la suñ ko xamee nu daw ko ndax du bañam bañ dëgg ndax dunu bañ dëgg beneen ba moo di jamono yoo xamee ne jàkkaarloo na noonu nit di ko laabiire di ko jot lii la yàllaa ko yonentam digle ba mu wóor ne àgg na ci moom ba noppi nu gis taxawaayu bañ am ca ñu bañ a sànq suñ temps suñ diggante ak kooka duñ ko bàyyi nag sax waaye duñ jël leen am ci waxtu lépp di ko ko jox ginnaaw xas na noo dem ba xam ne daa àgg ci nag yor feebaru bañ dëgg ku yor feebaru bañ dëgg di su ko bàyyi neenal ko waaye nag di su jeexal jeexal sa waxtu ci moom ndax boo ci jeexalee am na ñeneen ñu la aajowoo ñoo xam ne euh, ña nga lay te duñu la gis boobu tuul suñ xoolee taxawaayu boroom xam-xam lislaam ak seenub liggéey la ko tàmbalee ca saxaaba ya ba ci suñ jonni tey ñi nga xam ne dañoo jëfee alquran ak sunna te gëstu ci wàllu xam-xam ba xóot gëstu ci wàllu daawa tam ba xóot ñooñu dafa am benn méthode buñ nu bàyyil buñ aw xàll wu mag woo xam ne dañ caa war a jaar di dox xàll woowu ci la ñuy natte bopp ba xam fuñ toll waaye dafa mel ne suñ jëlee suñ jamono natt ko ci xàll wu mag woo wi nga xam ne moom lañu fi saxaaba yi bàyyi bàyyiloon ak seeni bi muy seeni ndongo yañ xamaloon day mel ne fi nu nekk ak fan waroon a nekk day mel ne dafa sore day mel ne fi nu toll ak fan waroon a toll nun jullit dafay mel ne dafa sore waaye loolu taxul nu jàpp ne mbir mi gaaf la du nu yàkkam ci boroom xam-xami lislaam seenu jëfleenteeg li ñu tudde alwax yi muy alquran ak sunna dañuy séddale mépp mbir moo xam ne mu nit war di fas la wala mu di ko jëfe wala mu di ko melowoo ci wàllu jikko dañ koy séddale ñaari xaaj benn xaaj bi doon ab xam-xam boo xam ne bu leer la bu àgg ci loxo yi mën a àgg ci loxo yi ñëpp nga xam ne ku jàng lislaam ba xóot ca ak ka ca jàng rek fardu fardu aynam daanaka ñoo ca yem kenn ku ci nekk loola war nga koo xam loola mel na yu ar ah, yuñ digle yu fés yi xam ne julli farata la ci yow xam ne koor farata la xam ne aj farata la ci ku ko mën ak yi ñu tere mel ne nit ki xam ne naan sàngara dafa xaraam jaaloo dafa xaraam lekk alali jaambur joo moomut dafa xaraam yu mel noonu dafa doon ñu fis yu leer naññ yoo xam ne daanaka sooy ba nga ne askanu jullit wu juddoo ci réewum jullit di fa dund yooyu suñ demul ci daara ñu jàngal leen ko it dañ koy xam loolu lañuy ñuy tudde maalum min ad diini bi darura al maalum min ad diini bi darura loo xam ne nit ki nekk ci biir ji moom munu koo bañ a xam su ko xamul rek dafa war a xoolaat ak nekkam nag ci biir diine ji ba xam ci la nekk dëgg dëggam déet beneen xaaj bi ci des nag dafa jëm ci masale yi gën a xóot nag ci wàllu diine nga xam ne dafa laaj spécialisation nit ki jàng nag ba xóot ci biir xam-xam ba bunt la boo xam ne nit ka mën na caa juum te fekk bañ dëgg taxul mu juum nit ki mën na caa juum te fekk bañ dëgg taxul mu juum loolu moo tax borom xam-xam yu islaam yi ci séddale googu ñu séddale mbir yi duñ def ku juum rek wala ku juyoog alquran wala ku juyoog sunna rek ñu jox ko benn àtte ni kii dafa bañ dëgg nañ ko sànni ca mbalit ma mu jeex déedéet faaw ñu xool sabab yi ak problème bi am ba tax ñiy wax ci moom wax jooju lan moo xew ban njuumte la def nan la toll ci lislaam lan mooy sabab ya yooyu suñ ko xoolee nag ba càmbar ko ba xam-xam-xam boobu fan la féete ñu door ko jox atte bu mel ni boobu ñu tudd kon nit ki mën naa juum ci diine maanaam juuyoo ak dëgg ci diine te fekk benn dafa juum wala dafa xamut maanaam lañ ko waroon a xamal xamal xamaluñ ko ko mu defee ne mbir mi nii la fekk du noona ku mel noonu kooku atteem bokkul ak ki nga xam ne dafa xam ba noppi lànk teg ca tànkam niñ koy waxe kooku mooy ki nga xam ne moom lañuy melal ne kooku balaal daf koo dal maanaam kooku moom lañuy ñu koo xam ne dafa bañ dëgg sabab yi tax nag ñi bañ dëgg kon ñu ñëw ci rapidement sabab yooyu bi ci jëkk bu nu neexoon dañuy wax mooy réer réer mooy ñàkk a xam waaye réer du caagi ni gépp réer rek day doon sabab ci bañ dëgg dafa am réeru koo xam ne dañ koo xamalut dañ koo bàyyi rek mu mel na meloon ñu ne ko mbir yi nii la mu judd ca loola yaru ca màgg ca ñu tabax ko ca mu ne loola nii la dëgg la kooku ku réer la waaye mu su ko tuddee nag ku bañ dëgg ndax waneesu ko ko ginnaaw kenn wanu ko dëgg mu ne su ko wax ni kii daa bañ dëgg dëgg la nit ki nag bari na muy noonoo loo xam ne ndekete réere ko moo tax ndekete réere ko moo tax day am sax ci nit koo xam ne da nga koy dégg déggin woo xam ne ñaaw la nga daal koy bañ parce que la nga dégg la nga dem ba jaxasoog moom rek nga ne ndekete liñ doon wax ndekete amul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dal na amr ibn al as ci moom keroog bi muy dugg ci lislaam daf ne ko yaay ki ma gënoon a bañ ci kaw suuf ci ni ma la daan déggee ak niñ la doon parasanté waaye tey bi ma toogee yow ba gis la yaay ki ma gën a bëgg ci kaw suuf kon iqamatul xujja muy nit ki ñu jottali ko xamal ko nag ba mu xam mbir ma door koo juger loolu lu munta ñàkk la bala nga koo atte faaw nga xamal ko ba noppi kon réer moomu duñ ko tuddee réer kepp waaye dañ koy tuddee topp bànneex maanaam gin jublu réer ginu jublu ci goo xam ne day sabab nit ki bañ dëgg mooy ittibaaxul hawa wala zan ñaar yooyu la ñuy njor ak topp bànneex suñ àndee ñoom ñaar réer ga cay juddoo réer googu mooy tax nit ki bañ dëgg waaye bokkul ak réerug ñàkk xamal réerug topp bànneex la ak u top njort moo tax borom bi tabaraka wa taala dafay ŋàññi lool ñi nga xam ne dañuy topp njort ak bànneex nee na in yattabiuuna illa zanna wa ma tahwa al anfus wa laqad jaahum min rabbihim alhuda nee na ñii wan la gannaaw yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ laa dong la ñuy topp ak bànneexu bakkan donte dëgg leer na fi seen kenam donte indil nga leen li yàlla santaane indil leen lim tere it loolu mooy seen melokaan kon loolu melokaan la woo xam ne yéefar yi lañ ci melal waaye képp koo xam ne jël nga melokaan woowu muy topp bànneex ak njort xamal ne am nga ab cër ci melokaan woowu borom bi tabaraka wa taala wax na ci xaqi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi mu ne maa dalla saaxibukum wa gawa wa maa yantiqu in huwa illa waxyun yuuxa mu setal yonent bi wecc ne kooka réerut maanaam réer gi ñu tudde dalaal nga xam ne mooy juddoo ci njort ak bànneex réer googu dalu ko mbewte dalu ko ñoom ñaar nag fuñ dajee tooñaange rek moo ciy tegu ki topp bànneexam topp njort ba réer juddoo ak mbewte kooku tooñ rekk moo ciy sës mu dellu setalaat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne du wax lu dul dëgg ndax li muy wax lu yàlla wax yu wàcce ko ci moom la ki topp bànneex nee naa kon ak njort la cay juddoo kon mooy mbewte ak réer loolu la cay juddoowaate mooy tooñ moo tax borom bi tabaraka wa taala mi ngi wax ne afa kullama jaahum rasulum bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kaddabtum wa fariqan taqtuluun mu ne yéen yahuud yi ndax saa bu yonent dikkee rek indil leen loo xam ne juuyoon ak seen bànneexu bakkan ngeen wone seenu réy ngeen wone seenu tolluwaay weddi ñenn ñi ñeneen ñi ngeen rey leen liñ rey ci ay yonent kenn xamul nu toll moo tax ñooñu ay tooñkat lañ ndax dañoo topp seen bànneex tegaate ne laqad axadna mithaqa bani israil wa arsalna ilayhim rusula kullama jaahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadabu wa fariqan yaqtuluun nee na jëlante woon nañ accord ak israil ne yónni ci ñoom boole ci yónni ci ñoom ay yonent waaye saa bu yonent ñëwee indi lu juuyoog seen bànneeku bakkan nee na ñu weddi ñenn ña rey ñeneen ña ca des loolu mooy seenu doxalin ba histoire amee ba suñ jonni tey kon ñooñu ku gis lañuy ñuy liggéeyee bis da ca tey ca Palestine ca Quds ak la ko wër ca Gaza nañuy def jullit ya nekk foofa te xam leen ñoom ñooy ñan ci alquran loola yow du la bett du la jaaxal ña waru kay ña nekk ci ay caaxaan kay mooy ña jàpp ne ñooñu ñu mënee sa jàmmool la ñu waree sa mën a jàmmool la ñuy continuer di dem nekk ci seen jàmm loola lu jafe la su mënoon a am alquran am ko wala yonent yàlla yi nga xam ne ñoo ëppoon yépp xikma ñu mën koo am kon topp bànneex mooy cosaanul réer googu mooy ndeyam dëgg la nag nit ñi dañuy wuute ci loolu ak wuute gu soree ci kem la nit koy topp bànneexam ak njortam noona lay soree dëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci siiraam ak lu jiitu loolu sax alquran al karim li nu borom bi tabaraka wa taala nett li ci dundug yonent yi seen diggante ak seen nit ak li fa feeñ ci xeetu topp bànneex ak topp ay caaxaan ak topp ay njort kenn xamul nu mu toll kon jullit bi mën naa laaj waaw nettali yooyu lu ko tax a jóg ba yàlla di ko nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wàcc ci moom mu nekk alquran mu di ko li aw xeetam ba bis nekk tey nu di ko jàng xew-xew yooyu nga xewoon yenn seen xamut kañ la woon bu yàgg la woon ñu nekk ci ba suñ jonni tey di ko nett léegi di ko jàng ci alxuraan di ko jullee sax loolu laaj bu rëy la lu tax li tax kon mooy nu jël ko mu nekk ay leçon nu waaru ci loolu moo ko tax a jóg su fekkoon ne waaru ci taxul taxul mu jóg kon nett li rek histoire boo xam ne dañ koy waxtaane mu jàll loolu taxut taxut ñu di ko waxtaan moo tax borom bi tabaraka wa taala ne kadalika qaala alladina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum ñii ñëw gannaaw bi te dëng dañoo mel ni ñu fi jaaroon démb ca dëng seeni xol benn la kon loolu mooy mooy leçon bu mag bi ñi ngay gis tey ñuy bañ dëgg xamal ne cosaan yi ñu sukkandiku tey ba bañ dëgg mooy ya nit ña sukkandiku woon démb ba bañ dëgg waxaat na ne maa yuqaalu laka illa ma qad qiila lirrusuli min qablik lii ngay dégg ñi di la ko wax boo wootee ba àggal ñu ne kiib dof la kiib jabar la xamal ne day du yow lañ ko jëkk a wax de yonent yi fi jaaroon yépp déggoon nañ loolu am na yooyu sax dañ leen a rey faf loolaa gën a rëy waxaat na ne yudaa'ihuuna qawla alladina kafaru min qabl ñii ñëw ba tey te dëng te topp bànneex te bañ dëgg nee na ñooñu dañoo nuróog yéefar ya fi jaaroon démb ñoo bokk dox doxin ñoo bokk mën xëj xàll wiñ jaar wenn we kon ki ànd ak xelam te xam bakkanu doomu aadama ni ko borom bi tabaraka wa taala bindee dafay wattandiku li ñuy tudd tudde shahwatul xafiya bànneexu bakkan bakkan ci doomu aadama dafa doon noon boo xam ne mbiram lu doy waar la dafa bokk ci moyens yi seytaane di utiliser lu bare bare bari pour yàqal doomu aadama ji diineem bakkan nag dafa am ay bànneex bànneex yooyu suñ ko waxee du caa gën lekk ak naan ak seeg fooy dëkk ak looy sol déedéet waaye dafa am bànneex yu ne ci biir yoo xam ne yenn yi bànneexi daraja la yenn yi sax bànneexi bëgg njiit la yenn yi bànneexi bëgg a wane sa bopp la bànneexi waru yu dul jeex kooku la ñuy tudde ashahwatu alxafiya ku ñuy wax shaddaad ibn aws radiallahu anhu dafay wax ne yaa baqaaya i arab inna axwafa ma axaafu alaykum alriya wa shahwatu jullit yi li ma gën a ragal ci yéen mooy njistal ak bànneex bu nëbbu bànneex bu nëbbu abu daawud sijistaani dañ koo laaj ma shahwatul xafiya waaw li shaddaat ibnu eh, aws wax fii muy bànneex bu nëbbu loolu mooy lan abu daawud ne xubbu riyaasa xubbu riyaasa nee na mooy bëgg njiit bëgg njiit ñoo àndal rek jàpp ne sa àq la ci ñoom ñu jiital la ñu teg la ci seen kanam su loolu amul rek xaj nañ la xañ nañ la loo xam ne yeyoo woon nga ko kooku bànneex bu nëbbu la bu ne ci biir bakkanu doomu aadama ji boo xam ne bu bëriwut ak moom mën na koo mën na koo teg loo xam ne kenn xamut fu jëm ak moom bokk na ci ay màndargaam nag mandarga yi bànneex bu nëbbu boobu ci nga xam ne feebar bi dal na ko mooy dafay màggal boppam lool léeg-léeg sax ak ñàkk kersaam àgg ci di ko def ci làmmiñam taxaw ci kanamu nit di wane ne man maa def nangam maa mel nàngam maa yeyoo ñu teg ma béréb sàngam xeetu ñàkk kersa googu léeg-léeg mu dem ba àgg ci moom mu di ko wax ci làmmiñam léeg-léeg bu fekkee mënu koo wax ci aw làmmiñam ci ay jëfiinam mu di ko wane kon kooku bànneex bu nekk ci biir bakkanu doomu aadama la boo xam ne mën naa tasaaroo lool te nit ka du ko yëg kon daal li jaadu ci képp koo xam ne mu ngi yëngu rawatina nag ñi yëngu ci biir diine muy wax muy jëf muy aw defiin ak lum mën a doon na ko sell lal na yàlla kese tax na yàlla kese tax bu ca doomu aadama am ab cër bu ca bakkan bi am ab cër nit ñi yëkkati nañ la suufeel nañ la xas nañ la saaga nañ la loolu du sa itte lay sa itte mooy taxawal ci def li nga war a def bu jeexee nga jàll bàyyi nit ñi loolu mooy melokaanu jullit ñii sàkku xam-xam jaadu nañu góorgóorlu foofu ndax bëriwukaay bu mag la léeg nit ki sàkku xam-xam nit ñi tàmbali di ko joxoñ ah moom de dafa neexum xel ca ba mu nekkee ca classe ba lañ koy tàmbaleeg moom ña nga lay indil ay problème dem ba mu yàgg ñu wëlbati ko jiital la dem ba mu yàgg teg la nii teg la nangam nangam soo yeewuwut da ngay jàpp ne dafa am foo toll foo xam ne moo tax loolu feebar ba mën na laa duggee foofu nag nga teggee ko foo dem fu nekk jàpp ne da leen war a jiite na jiite woon élève ba ci classe ba na nga jiite woon mbooloo ma na nga def woon fekk mbir ma noonu su dee ku yow nag mu yëg ne organisation kat moo tëdde nii dañ maa teg ci kanam te fekk fanweer a ngi ci sama gannaaw ñoo xam ne ñoo ma ko dàq waaye lii la yàlla dogal su ko defee loolu mu di ko dund ci biiram bu ko waxut ci làmmiñam itam kooku ñu teggi ko fa teg fa keneen ak indi keneen yooyu yëpp ci moom amalu ko soxla li am solo na gaal gi dem rek ku ko mën di dawal ku mën a doon baax na melokaan yooyu yi ñu war a jëmbat nag ci ndaw ñi ci la ndax ndax dañoo aajowoo ay nit ñu mel noonu nit ñoo xam ne jamono ya ñuy def yàllaa tax ñuy def ak mbir mën a baax ci ku mën a baaxee rek baax na kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne man talaba ilman mimma yubtaga bihi wajhu llahi la yatlubuhu illa li yusiba bihi aradan min addunya lam yarix raixata aljanna rawahu abu dawud wa ibnu maja wa saxahahu al albani yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ku sàkku ab xam-xam man talaba ilman ñu xam ne xam-xam la wax boo xam ne dañ koy sàkku ngir yàlla maanaam wut di ca wut tuyaaba nee na waaye fekk la tax mu koy sàkku mooy bëgg caa am àdduna rek loolu ko tax a jóg nee kooku xetug àjjana du ko xeeñ wala yaasu billah kon mbir la moo xam ne mu rëy rëy la mu mat a bàyyi xel la mu mat a daw la boroom xam-xamu sunna bu mag ñu koy wax Abu Osman yi saburi an-Naysaburi day wax ne man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil xikma wa man amara al hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bidaa nee na ku jël sunna def ko muy sa amir sa bakkan ak say bëgg-bëgg ak say bànneex yépp topp ci sunna sunna jiitu di ko wommat nga xam ne lu muy bëgg a def lu nekk du seet ndax neex na naqari na waaye dëppoon na sunna ak dëppoowul ak moom lay xool nee na nga def ko ci say wax ak ci say jëf nee na kooku lu mu wax rek xikma lay doon xam-xam lay dëppool dëppool borom bi tabaraka wa taala mooy def xikma ci làmmiñam mu ne waaye ku jël bànneexu bakkan def ko mu doon sa njiit di la wommat ci say wax ak ci say jëf nee na kooku dana indi biddaa biddaa yi tasaaroo yépp looloo ko tasaare bànneexu bakkan te biddaa boobu mu wax musiba mi mu doon mooy feebar la boo xam ne bu xasee dal nit ki daanaka moo cancer ci wér gi yaram ñooyam faj ko dafa jafe faj ku xam ne feebaru biddaa daf koo dal nga xam ne jàpp na ne am na yoon wuñ war a mën a jaar ba am ngërëmul yàlla akub yonentam te bokkul ak yoon wa yonent ba jaaroon ak i saxaabaam feebar boobu bu xasee dugg ci xol dindi ko day jafe ndax fa muy duggee du jël nit ki dugal tàbbal ko fu ñuy naan sàngara ndax kay naan sàngara xam na ne day mooy yàlla du ko dugal fu ñuy njaaloo wala fu ñuy carte ndax ñooñu xam nañ ne dañuy mooy yàlla waaye ci biir jaamu yàllaam yi julleem yaag kooram yaag naafilaam ya fa la koy fekk indil ko ci yoo xam ne bokkutal ya sax ci diine feeti diineem yi mu tabbalal ko ci yu diis yoo xam ne yonent baa ki saxaabaam xamuñu ko ñu ko nag di sakk-sakki yooya la tax dindi ko jafe mooy ki koy def jàpp na ne day jaamu yàlla nit kii jaamu yàlla nag yow nga ñëw taxaw di ko ko tere kooku danaan kii dafa lu baax ak noonu daal di juddoo seen diggante fekk wallahi bañ lu baax taxut lu baax moom ab jullit du ko bañ waaye laa sa mbokkum jullit mu jàdd aw yoon nga ne ko jaar sil fii la yonent bi jaaroon ak ci saxaabaam lay doon su boobaa omar ibn alxataab radiallahu taala anhu ba mu fekkee kuy julli ñëw dàq ab place ne béréb sàngam bii dee ñu fiy julli ndax nangam ak nangam taxawal di julli ñu nettali ko omar mu jóge ko gannaaw dóor ko bia mu geesu mu ne ko jógal foofu mu ne ko ala ala salaati darabtani da nga may dóor ci julli mu ne ko maa darabtuka ala salaa lakin darabtuka ala xilaafi sunna dóoruma la ci julli waaye juyoo gi nga juyoo sunna loolu ci laa la dóor fiq bu sew boobu yi dan koo aajowoo lool nun jàpp nañ ne li feeg nit kaa ngi wax laa ilaha illallah ak nu mu ko mën a waxe fu mu ko mën a waxe rek noonu baax na ay rakkaa la taxawal di julli fu mu ko jullee baax na li muy def feetu diine la ko tudde fu mu ko defee nu mu ko defee rek baax na kooku jiital sentiment la waaye bokkul ak jiital xel nag ak xam-xam ginnaaw diine dafa mat nangootul ñi cay dolli wattandikul bànneexu bakkan sosal la lu ca ab yan bu diis lay doon boo xam ne da nga koy yaru di sakk-sakki te yenniku ko dana la jafe lool te sa mbokkum jullit mu ñëw di la ko jiima dimbali sax pour nga mën ko ku faf ab noonu nga koy def ndax da nga naan kii def naa tere jaamu yàlla kon foofu seytaane am na fi am na fi lu rëy rëy loo xam ne réalisé na ko ci sababu sopp bànneex moo tax Sufyaan as-Sawri rahimahullahu day wax ne al bidaatu ahabu ila iblis min al maasiya iblis bidaa moo ko gënal mooy yàlla sàngara yu mel noonu ñu ne ko lu tax mu ne borom bidaa du tuub te kii naan sàngara day tuub kii naan sàngara xam na ne day mooy yàlla kii jaaloo noonu kii sàcc noonu jamono yu ne rek mën naa xëy dégg benn baat bu ko jàjji rek mu tuub bàyyi lam doon def la weesu woon lépp yàlla effacé ko ko mu jeex mu ne nag kii moom tuub yomb ko loolu moo tax ndax dafa jàpp ne day jaamu yàlla kuy jaamu yàlla nga daan ko kaay tuub bu tuubee ko mu jëm kon la war a jiitu mooy xamal ko ne ko moom li muy def daa nuroo ko jaamu yàlla waaye ndekete du moom bi daa la kon loolu lu mat a wattandiku la imaam boobu muy abu osman nisaburi mu teg ci ne li anna allaha yaqul wa in tutiuhu tahtadu mu ne ndax sama boroom daf ne yonent bi su ngeen ko toppee gindiku su ngeen ko toppee gindiku kon loolu li muy firi mooy su ngeen ko toppul réer réer kon topp bànneex ci boppam dafa doon loo xam ne noonu la bu mag boo xam ne dana tax dëgg feeñ nit ki lànk dëgg googee ngir topp bànneexam moo tax lenn ci salaf dañuy wax ne charru ilahin ubida fi l ardi al hawa li yées ci loo xam ne ñi ngi koy jaamu ci kaw suuf nee na mooy bànneexu bakkan mu ne bànneexu bakkan dafay réeral nit ki daf koy bañloo dëgg donte sax am na xam-xamu xam ne lii dëgg la léeg-léeg mu xam ne lii dëgg la waaye topp bànneexam moo tax mu lànk ko su fekkee ne nag bànneexu bakkan da ko jiite di ko wommat te fajul feebar boobu dellu gannaaw dana dem a dem a dem ba xalaati boppam mooy doon diine lam nekk ci boppam ak lu mu mën a doon jàpp na ne loolu mooy njub ku jooyoog moom ku mu mën a doon jàpp na ne kooku moo réer amatul balance bu muy natte dara lu dul jëmmi boppam kooku musiba la su loolu amee ci biiru xeet tasaaroo ca la muy jur mooy juyoo metti ndax bànneex yi moom bokkut te it kenn ku ne da ngaa bëgg sa bànneexu bakkanu bopp su kii toppee bànneexu bakkanam kee topp bànneexu bakkanu njiitam kee topp bànneexu bakkanu soxnaam kee topp bànneex kenn ku ne la koy wommat bokkul ak lay wommat ka ca des su ko defee juyoo gaag xuloo baag werante waag tàqalikoo lay jur la cay tegu mooy ak néew doole ak ñàkk solo ak wayaf su boobaa xeetu lislaam ci boppam ñooy jékki-jékki doye di wayaf ci seen i kawi noonu mooy la borom ba waxoon fa intana eh, wala tanazaau fa tafchalu wa tadhaba rixukum bu leen juuyoo su ngeen ko defee da ngeen di échec seen kàttan day dem te kat yooyu li muy doy doy waar borom bi tabaraka wa taala ci mbaaxam wàcce na ci yonentam loo xam ne ak lu jamono naqari naqari lu mu bon bon su ca nit ñi jàppoon réer googi ak topp bànneex googu danañ ci mën a mucc muy alquran ak sunna fa in tanazatum fi cheyin farudduhu ila allah wa rasuli in kuntum tuminuuna billahi wal yawmi al axir yéen ñi gëm yàlla gëm alaxira su ngeen jooyoo ci dara delloo leen ko ci alquran delloo leen ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yi mu xam ne fii shay in ñuy gëstu ci wàllu kàllaam arab xam nañ ne nakira la boo xam ne dafa ñëw ci gannaaw charte fa in tanazatum fi shay kon bépp juyoo boo xam ne am na ci diine doonte dafa néew la jaadu mooy delloo ko ci alquran ak sunna loolu mooy génne jullit yi ci ak juyoo li gàttal wax ji foofu mooy juuyoo dana di am ci biiru xeet bu mën a doon xeetu lislaam am na ci biir musta dañu di ci am waaye juuyoo yi nga xam ne sababam mooy topp bànneex kooku faj ko dafa laaj nit ki ñu yëgal ko ne feebaru topp bànneex dafa nekk ci biiram ngir jàngale ko mu déglu ko ba xam ne loolu daf koo dal fexe ba mu am courage u ittey fas yéene jog dox ngir saafara loolu comme ni nit ki demee ba mu yàgg ab tànkam di metti mu yëg ne moom mii ab tànkam day metti mu jóg di ko faji noonu la war a yëge feebar boobu li gën a jabe jafe nag ci faj feebar yi diine yi mooy yëgal nit ki ne dafa tawat yëgal ko ne dafa tawat moo gën a jafe xam nga feebaru yaram fi yaru metit moom nekkoon ci jàmm ba mu yàgg mu yëg ne mi ngi metti kooku yomb naa xam waaye kii ginnaaw dafa nekk ci roqam beru fa wala ci biir mbooloom di dund loo xam ne jàpp nañ lii mooy diine ji gisuñu leneen dégguñu ko nga bëgg koo woon leneen loo xam ne bokkut ak loola ba noppi mu xam ne ndekete li mu nekkoon juumte la ma ne loolu lu jafe la du lu yomb que say liggéey it nag faw mu am yaatug dënn faw mu am yaatug dënn teg ci kanamam kadalika kuntum min qablu fa manna allahu alaykum nii ngeen meloon yàlla defal leen xéewal ba ngeen gis dëgg kon nag yéen itam am leen yaatug dënn ba nit ñii ngeen di woo ngeen def leen ndànk-ndànk ba ba ñuy àgg foofu waaye mënuñoo xëy xëy rek daal di wëlbati fi daal di soppi ko jaar ci siraatul mustaqim koo xam ne dafa judd nekkub xale ñi di ko yar ci dara muy ndaw màgg ca ba xëy suqiku bi jaaw ba xëy doon mag nekk ci loolu fu mas a dégg ñuy wax lu baax ñu ne lii bu lu baax njuumte yi ca nekk nga xëy xëy ne yii ay njuumte la da koy bàyyi tey loolu ma ne doonut loo xam ne lu yomb la yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax nag defewu ko woon noonu da doon leeral dëgg gi bàyyi nit ñi borom xel ya doofuñu buñ demee xam nañ la mat a topp ak la mat a bàyyi moo tax Euh, borom bi tabaraka wa taala daf ne ko lasta alayhim bi musaytir maanaam dooloo koo xam ne yaa yor seen i nos rek fu la neex nga jëme leen yow kay leeralal rek wa ma ala rasul illa albalaa yonente bi jottali rek moo ko war laysa alayka hudaahum du caagi ne seenu gindiku ci sa loxo la nekk waaye nag jottali moom daf laa war yow yonent bi daf laa war yéen borom xam-xam yi daf leen a war yéen ñi nga xam ne yéen ay wootekat yi ñu xam ne it am na ay yooyoo yoo xam ne ci biir diine ji dafa doon yoo xam ne yu yu mënta ñàkk la maanaam yenn masala yu sew sewaan donte diine amul sax lu sew sewaan waaye buñ ko comparé ak yeneen ya ca des noonu lan mën a waxee yenn masala yi nga xam ne dafa nekk ci bunti fiq yoo xam ne jooyoo daf caa war a mën a am ndax bunt bu ñuy tuddee ijtihaad la muy dafa doon foo xam ne laaj na nit ki boroom xam-xam bi mu jëfandikoo fa xam-xamam toll ngir mën a àgg ci dëgg foofa su defee noonu keneen def noonu juuyoo googu dara du ca nekk li féeg nag du dañ ko soppi mu nekk buntub noonu saxaaba yi doon nañ juuyoo ci ay mbir te loolu yàqul woon dara seen diggante waaye ñu xam ne juuyoo googu ci ay masala la waaye nekkul juuyoo ci wàllu manhaj li ñu tudde manhaj moom mooy yoon wu leer wi ñu jaar nga xam ne ñoom ñëpp gëm nañ ne alquran ak sunna képp moom la ñu war a topp manhaj boobu moom jullit waruñ ciy juum juuyoo nit ki war te nekk ci xelam ne dara war na mën a sax ci alquran wala mu sax ci sunna mu ne samam xel laay jiital walla su ma neexee jël bi bàyyi bee ginnaaw jooyoo nañ rek da tànn sa bu la neex déedéet jullit bi du mel noonu day seet lam jàpp ne lii moo gën a jege dëgg moo gën a jege gën a jege alxuraan mu jàpp ci loola ngir mu yaatu mu nga xam ne ci lañ jaar muy noonu nag loolu moom saxaaba yi mosuñu ci jóoyoo imaam yi ñuy topp tey mosuñu ci woon a jóoyoo muy abu xanifa malik shafii ahmad rahimahumullah ak ñamel ne ñoom ñu bare bari ñoo xam ne niñ toll ci xam-xam fa lañ toll woon nañ toll woon ci jàngale foofu lañ toll woon waaye ñii la yàlla dogal seen i ngir tasaaroo ñu ñëpp liiñ bu yaatu boobu mbedd mu rëy moomu nga xam ne mooy mbeddum alquran ak sunna ak lépp lu ko juyoo des ko war a bàyyi donte waxi imaam bi la sax ñoom ci yoon woowu lañ jaaroon ma ne nag jaar ci yoon woowu téewul nag juyoo ci masala mën naa am gannaaw buñ bennoo ci mën hëj ñu xamee masail yi ak mënaahij da ngay gis nit ku juyoog yow ci masala nga génne man manhaj ba nga nekk te fekk masala ak manhaj bokkuñ moo tax saxaaba yi juyoo nañ ay juyoo yu mag ci miraas ndax maam ak ay frère dañuy bokk doon wala duñ bokk doon foofu juyoo nañ fi li ñu tudde ummahatul awlaad muy nit ki su amee jaam ba xas am moom doom ndax sañu si na ko jaay wala sañu ko foofu juyoo nañ ci fase te fekk takkagoo soxna ne bis bu ma ko fase naa ko juuyoo am na ci ay masail yu bari nag ci wàllu njaay juuyoo am na ci juuyoo nañ sax ba àgg ci masala yoo xam ne xam naa ne ku ko defoon tey boo wëttuwut nit ñi buñ la génnewul diini ji danañ ne kii moom moom jàdd na jàdd na mën xëj bi far génn na mbedd mu yaatu na abu talha radiallahu taala anhu ci masala xor ba noppi jis li ñuy wax barab muy yuur wala neige wala nga mën ko tudde glace loolu dafa gisoon ni yàqul koor yàqul koor mu nit ki mën naa woor jël glace walla barab wala yu mel noonu di ko lekk te kooram di yàqu kenn ku nekk xam na ne loolu moom mënees naa jàpp ne njuumte la mënees na koo jàpp waaye ñee ca juyoo woon ak moom it taxut nag ñu ne ko lenn xam nañ ne gëstu na xam na ni lii dëgër na loola la saxal te gisut leneen lu ko ko dindil ñu xam ne leen itam nag foofu bala ñoo jàll mooy borom xam-xam bi gëstu na ba gis ne lii moo mooy li gën a dër ci masala bi tekkiwul ne da ko daan def loolu loolu lu ma ta bàyyi xel la léeg-léeg nga gis mbokk yi ku gëstu ba gis masala bu xóot bu xóotu mu mu xëy xëy rek di ko def ci biir ci kanam ci kanam mbooloo mi xëy xëy rek def ko ci kanam mbooloo mi te borom xam-xam sukkandiku ne moo ko wax mun te wane benn dalil ne borom xam boobu mas na koo def sax foofu waaye romb na masala bi daal gis na ne lii lu dëgër la lu mën a nekk la mu daal di wax loolu daal di jàll kon Abu Talha mënunoo saxal ne daf daan def bu wooree di naan glace loolu kenn gisul lu ko mën waaye dafa wax ne eh, li ñu tudde barat nga xam ne bu tawee mooy wàcc nees boobu nekk ay doñ ndax ma bañ yaatal bunt bi ndax ñu bañ a defe ne glace glace rek lay daal di doon ñu daal di am na saxaaba yi bu ne mënees naa naan glace daal di sant siise wala turé daal di dugg ci sam néeg di naan sa glace déedéet mooy yuur bi daanoo ci ko asamaan si wàcc doon ay doñ kooku la gisoon ne yàqul koor te gisuñu fu ñu wonee ni sax ne moom dafa ko daan jëfandikoo kon tomb pour gàttal bunt boobu <coughs> tomb topp bànneex tomb buy tax a bañ dëgg la ni koy defe it mooy nit ki jiital bànneexu bakkanam ci dëgg ba su feeñee mu jël tànkam teg ci dëgg ne sama bànneexu bakkan bu ko waxut ci làmmiñam it mu topp bànneexu bakkanam am na ñoo xam ne buntu xilaaf muy juyoo su xasee am rek fa ñuy toppee seen bànneex mooy dañuy wax ne masala boo xam ne xas nañ ci juyoo kenn mënta xamati dëgg loola neex rek ngay jël loolu ñu koy def dañuy def li tudd te tabaxu ruxas maanaam mbir ma gën a yomb rek moom la ñuy jël fenn fu ne ñu tànn la ci gën a yomb fenn fu ne ñu tànn la ci gën a yomb ñu xam ne juyoo teewul ñu mën a xam dëgg juyoo ci masala teewul ñu mën a xam lan moo cay dëgg loolu lu ma ta bàyyi xel la ay masala yu bëree bëri juyoo am na ca gëstukat yeeg borom. kon ñaareelu tomb bi nga xam ne bokk na ci yi tax a bañ dëgg am mooy at taqlidul ama taqlidul ama nag buñ ko waxee mooy roy goo xam ne àndatul ak xel roy goo xam ne àndatul xel roy nag buñ ko waxee am na ci loo xam ne dëgg la lu jaadu lu war a mën a nekk la waaye am na ci loo xam ne lu ñàññi la roy buñ ko waxee mooy sa diine la ngay jëfe nga jële ko ci nit toppe ko loola loolu doon na loo xam ne munta ñàkk ci diine ji daanaka ndax ku xam dara ku nekk am na foo ko xame ku xamul ku nekk da ngaa war a laaj borom bi tabaraka wa taala ne fasaluuna dikri in kuntum la taalamuun waaye li jaadu ci borom xam-xam yi jamono yi ñuy leeralal nit ñi diine ji ñu bàyyi ci seen xel ne diine yàlla lañu leen di leeralal waaye leeralañ leen seenu xam-xam ñoom ndax lu bari luy indi roy goo xam ne nit ki day wëlbatiku di roy nit ka ba ba ne kii lu mu waxati laa wax mooy jaawale nit ka ak lam doon leerale lam doon wane maanaam jaawale weer wa ak kay wane weer wa boroom xam-xam yi wanekati weer lañ dañ naan ma nga ne leen ñuy xool foofa waaye boo ne mi ngi nii ñi xool sa jëmm nga ne man maa mel nii maa xam lii nañ ma topp nañ ma wuy si kooku la muy jur mooy ay nit ñi topp ci yow ne la loo wax lañ wax loo waxuñu ko muy indi li ñuy wax ab taqlidul ama képp ku sos mbooloo jiite ko ak noo mën a tudde mbooloo ma ak ba askan bu mën a doon bu mën a doon wala ngay borom xam-xam boo xam ne dangay jàngale ay nit di leen déglu war ngaa def ci seeni xel ñi xam ne lañuy ñuy topp suñ la laajee la ngay tontu la nga bëgg nit ña topp ko mooy diine yàlla ji waaye du mooy ñu topp la yow loolu yi lu ma ta xam la tekkiwul nag ne nit ñi dañuy saawaan duutu ñu am ay njiit foofu faaw ñu xàmmee ko njiit lu baax la loo xam ne dafay jubbanti dafay tege ci yoon day wane siraatul mustaqim ku bëgg a jeng mu won la su bëggee jeng moom it ñu jubbantiwaat ko lu mel noonu mënta ñàkk ci jullit yi mosu cee ñàkk itam jamono yu nekk njiit dafa am boo xam ne dafa tege ci siraatul mustaqim waaye njiit loolu dafa jaadu mu jàngal nit ñi fan la man-manam ak xam-xamam yam ba su gisee ku ko bëgg a yëkkati bëgg koo jox lu mu moomut mu ne la oh, oh, oh, loolu moom ma ko loolu yàllaa ko moom loolu yonent bi képp a mel noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf daan def loolu léeg-léeg ay nit ñëw ne yow de nangam nangam mu ne déet loola yàlla waaye du man wala yàlla ay nit ñëw nañ ci moom taxaw fële ne ko yaa sayidana yabna say yow sun sang bi yow doomi sun sang mu ne leen déet laa yastajir yannakum cheytaan wattu leen cheytaane gañe leen man ab jaam laa dib yonent jaamu yàlla laa di ab yonentam ay nit ñëw di ko tagg mu ne laa tutruni bu leen ma tagg bu leen ma jey ab jaam laa dib yonent ñaar yooyu la daan la daan damoo doon gi mu doon jaamu yàlla doon gi mu doon yonent kon fexe na ba fekk moom ñam yoroon muy saxaaba yi ba xam nañ kan mooy yonent bi teg ko palaas bi mu war a nekk gëm ne mënee su ta xam diine ji te jàngoo yonent boobu xamuk dundam xam fa muy dugg xam fa muy génn xamuk xam-xamam door a mën dund diine ji fonk ko respecté ko défendre ko sax ci seeni ruux loolu lépp xam dund nañ ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye bu dara desul luy nuroog xeetu jaamu nag di jox ko borom bi tabaraka wa saxaaba yi ñu ñëwee seen gannaaw ñañ doon yar ci liñ leen yar mooy lan mooy xam-xam bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon xam-xam boobu nañ ko jàng nañ ko xam nañ ko jëfe nañ ko roy itam boroom xam-xam bi ci sa kanam di la ko jàngal ngir pratique bi mën a leer ci moom da nga ko xool ni muy jëfe nga di ko jëfe waaye nag téewut yar na la ci nga yëg ne ginnaaw moom du yàlla du yonent dana juum dana juum ndax dafa am lu ñu tuddee isma muy mucc ci njuumte kooku yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek moo ko amoon ci xeet wi xeet wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ci nekk maasuum mooy koo xam ne mucc na ci njuumte ak ci bàkkaar ku dul moom muccoo ci njuumte ci diine ji muccoo ci bàkkaar waaye fu nuy rawantee mooy ca mbaax ga nit ka dana bari yiw ba yiw wa day muur ay njuumteem ndax néewaay bu njuumtee néew nit ki dana bari ay tuyaaba ak ci def lu baax ak siiw ca ba su defoon bàkkaar sax lu baax loolu daf koy muur maanaam du ca feeñaale te borom bi tabaraka wa taala yi ko koy jéggal ngir loola ngir melokaan woowa su ko defee pas-pas boobu nit ki xamaale ko daf cee am solo lool te ka koy jàngal wala ka muy topp ak kum mën a doon nag ginnaaw du yonent ba mu gëm ne mën naa juum seytaane mën na koo jaxase mën na koo yàqal mën na koo defal ay pexe ba dugal ko ci yeneen mën naa tàbbal ci biirub daawaam sax bi daata du ko yëg yooyu mu yëg ko bàyyi ko xel jël ay matukaayam ba du tàbbi kilifa bu mag danañ faral di nettali zahabi mi ngi koy nettali ci eh, siiru alami nubala muy eh, cheikh abdul qadir jilaani kenn ku nekk xam na ne ci pas-pasu di julli ba mu yàgg mu gis ak leer gu wert ci asamaan si bi mu sëlmalee xool asamaan si gis leer goo xam ne daf ne ko yow Abdul Qadir xamal ne man sa boroom jéggal naa la loo ma sa def may naa la it lu la neexati defal mucc nga ci lépp wax joo xam ne daal maanaam moomu la làmboo ba loola waxee ba daaneel mu ne audu billahi min ashaytani rajim leer gu wert gu rafet googee soppi ko sawara daal di sotti ko mu continuer def ay julleem bay ñibbi ak guur gu mag dajeeg moom ne ko waaw ki doon wax ak yow léegi dégg nga ko mu ne ko dégg ko moo tax ma tontu ko li ma ko tontu mu ne ko da ngaa xam ku mu doona mu ne ko ah xaw ma ku mu de waaye xam naa ne baaxut lu sax baaxul mu ne ko lim ma wax ndax nee na ma may naa la lu la neex a fi def te ma xam ne loolu su amoon kuñ koy may kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lay doon te moom yàlla daf ne ko waabud rabbaka xatta yatiyaka al yaqin jaamul yàlla ba keroog ngay faatu te wóor na ma ne saxaabaam yi sax séenaguma leen kon fan laa mën a àggee foo xam ne dañ may may luñ mayul woon yonent bi waxuma la saxaaba yi góor ga ne ko man mii man a nekk iblisa lu mu ca teg ne ko bi fiqhi ka najawta bi fiqhi ka najawta ci sa dégg diine ci nga mucce ne ko lii lii ma la def tey réeral naa ci juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne ay wàlli yuñ doon topp lañ juróom-ñaar fukki junni nit ñoo xam ne ay wàlli yu nit ñi daan topp topp lañ ma loo leen jaamu yàlla yañ daan def ci nii ma def ak yow kon mucc nag ci seytaane bu nit ki demee ba naagu ci ne man mucc naa ci seytaane ma mënalatuma dara wala yow may topp yéen mbooloo may topp seen njiit ngeen ne ko mucc na ci seytaane xamal ne seytaane ma nga leen di jekku nag bu boobaa gàttalu wax ji mooy kenn muccut gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam pas-pas boobu nañ ko yóbbaale kon kuy roy nit te móor la ne du yonent yàlla baaxe la nga xam dara ci xam-xam koy roy dee ko xool ci alquran ak su jubalee alhamdulilah ñu jaar ca loolu soo gisee lenn luy nuru xeetu dëng nag dawal te xam ne loola ah, dafay yàq su doonee koo xam ne ku ko laabiire mu dellu gannaaw doonte njiit la des ko war a laabiire mu dellu gannaaw ndax lislaam it noonu la tëre ay mbiram njiit bu juumee des koo war a jubbanti ci yar ak teggiin yëgal ko ne ko loolu njuumte la doonte ci secret lay doon digganteem ak ku ko ko mën a wax ku tolloog moom ay at wala ku mu tollool fu jaare ko ci moom ñëw waxtaan ak moom nangam ak nangam ak nangam juumte la bu ko defati loolu jamono yoo xam ne dem nañ ba njiiti askan wi ñàkk ko su boobaa askan wi jëmatuñ fuñ xam su demee ba am amatuñ ñoo xam ne su njuumte amee ñëw ne la loola njuumte la kon askan wi jëmatuñ fuñ xam ndax njiit ya dañuy teg seen bopp rek di dem kenn xamatul fu ñu jëm te xam ne l'islam exemple bi muy joxe loolu ci biir julli imaam la def mooy ki nga xam ne moo gën a ci ñiy jiite xeet bi gannaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam sax imaam la woon faf imaam jooju dañ laa wax ne ci biir julli bu ci soppee dara ak lu mu tuuti tuuti bu moon sax ci arab ci alquran ànd ak ni julli ñoo tere ku ca wax bu boobaa yow mi mu jiite waxal jóg na soppi ab rakka war a toog jóg taxaw nee ko subhanallah su xamut lu mu doon nee ko déedéet da ngaa def nangam ak nangam ak nangam ci làkk wa nga dégg te du yàq julli ga su fekkee ne julli moom yi nga xam ne kenn wuñ cee wax nit ñi dañu war a tey seen i làmmiñ moo dem ba su imaam bëggee soppi dara dañ ne yow miñ jiite nag waxal ndax mu bañ a soppi julli gi kon yeneen mbir yi ci des yëpp nag noonu la demee saa boo xam ne njiit dem na ba nar soppi loo xam ne bokkut ak la yonente bi alayhi salaatu wasalaam tëroon su boobaa wax jot na suñ waxul rek dana féetal def loo xam ne la muy indil xeet bi bu ëllëgee mooy biddaa yu mel ni yii di gis rek su kenn ku ne jëlee sa kenn topp ci moom ne ak kii kay moom mooy waaja lu ko neex mu dolli ci boo ëllëgee mu ne ah am na leneen lu ma gis ci nelaw yi muy ngi nii indiwaat mbooloo mu jëlee ci fab leen dog sàngam def leen nangam def leen nangam ñi féetewoo lool di ko def ñu ne lu mu indi rek noonu la bu yàggee da ngay jekki ba mu yàgg day mujj diine ja na nga ko jote woon mu doonoon alxuraan ak sunna day soppi ko soppi ko bu boo ko gisatee duutoo ko xam af day ko ba duutoo ko xam dara du ko mën a delloosiwaat nag lu du delluwaat si alxuraan ak sunna na ko jàngalekat ba doon doon joxe misaal di wane ni nit ñi mbir mi lu gën a yàgg day gën di soppiku daf ne jàngalekat bi dafa dugg ci benn classe daal di dessin muus dessin dessin looy benn looy mooy ibbu mooy ibbu bi ñu ko dessin ci première classe bi ne élèves yi ngeen copier ngeen def lu mel ne li ma def da ko indi sax mu doon photo mu taf ko gaa ñu dessin mu xool élèves yi ki ci gën a rafetle mu jël ko mu doon maquette bi mu yóbbu ko ca deuxième classe ba ñooña roy boobu bi ñooña royee mu xool ka ca gën a rafet la mu jël ko nee na bi muy àgg ci juróomeelu classe ba ka ca gën a rafet la tane ca nee na looy ma bu ba mujj na yor ay béjjën mujj na yor ab geen ndax soppi soppiku na soppi nañ ko tuxoon na fii jàll fii dara soppiku ñu mu jàll fee leneen soppikoot mu jàll fee soppiku fi mujj melatul na meloon kon su fekkee bëgg nañ koo defaraat foofu li ma fi wax mooy delluwaat ci photo ba ci boppam xool ba nga xam ne moo photo woon looy ñi xam ne kii kat moom ndekete nii lay mel waaye wërta am genn wërta am béjjën mbirum diine ji lu mel noonu daf ci am léeg-léeg yëf yi di toxu nit ña di ca dolli muy toxu ñi say dolli ba mu yàgg boo gisee kay dund alxuraan ak sunna te yam ca kepp bañ caa dolli leneen gis ko topp silsila boobu di dem nga xool seen jaamu yàlla seen comportement seen lépp day mel ni ñaar yu bokkul nag diine ju nekk lay mujj di du nuru faf day mujj mel ne loolu su boobaa nag wax dëgg yàlla diine ji jaadu na jullit yi taxawaat ne waaw nun lii nuy dund ndax jaaduwut nu jéem a xoolaat yëf yi fa mu balle woon ana sun borom yi xam-xam ana jàngkat ya di alxuraan ak sunna ngi fi ba tey dellu leen ci te xoolaat ba xam yii nuy def am na fu mu tegu wala amul fu mu tegu loolu suñ ko defee danañ mën a mucc ci li ñuy tuddee ak taqlidul ama abdullah ibnu abbas radiallahu taala anhu ngir xam saxaaba yi déggiin woowu ni mu ñore woon ci ñoom benn bis dafa wax ci wàllu aj wax joo xam ne ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jëlee bi mu àggalee am ku ko tontu ne ko ah Aboubacar ak Omar de moom nee nañ nangam ak nangam ak nangam mu ne leen maa ngi am njàqare day yàlla wàcce mbugal ci suñ kaw ay xeer ma naan yonent bi nee na ngeen naan ma Aboubacar ak Omar nee nañ nga xool wow déggin ànd ak Aboubacar Omar ñooy ñan ci lislaam kon déggiinu saxaaba yi demoon na ba àgg ci ñu xam ne ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu say wax ñëwee juyoo ay waxam dañuy teg waxi kooku kooka fee ndànk jàpp ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax kat mooy yonent ba nag moom lañ yónni ci nit ñi doo dugg ci bàmmeel mukk ñu lay laaj kan moo doonoon sa président mbootaay kan moo doonoon seexu sa tariqa kan moo doonoon nangam yooyu kenn ko laaj kenn li ñu lay kay mooy yonent bi nga gëmoon ban taxawaay nga amoon ci nit kii ci roy ko kii yàlla ne woon laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla indil leen ko ne leen royukaay baa ngi nii kooku foo ko toll loolu lañ lay laaj ci bàmmeel alquran nii mu ci moom nga war koo jëfe dana la laaj loo ci def kon laaj yooyu yu mat a bàyyi xel la al imaamu shafii ngir nga xam ne boroom xam-xam yi bëgguñu taqlidul ama muy al toppe roy goo xam ne àndut ak xel nee na ajmaa al ulamaau ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yakun lahu an yadaaha li qawli ahad wa qala aydan ida saxa alxadisu fadribu bi qawli ord alxaid loolu wax ju am solo la nee na boroom xam-xam yi dëppoo nañ imaamu Shafii mooy wax ni képp koo xam ne sunna yonent bi leer na ci moom fi kanamam xaraam na ci moom muy bàyyi sunna ngir ne diw nee na muy bàyyi sunna ngir ne diw nee na ñu ne ko yow nag imaamu Shafii mu ne bu fekkee ne xadis xas na wér ci masala samay wax ne sànni leen ko ci ñag ba samay wax sànni leen ko ci ñag ba su fekkee xadis wér na ci mbir al imam Malik nee na ma minna illa raddun wa mardudun ale amul ci nun kenn lu dul koo xam ne wax day ñëw ci moom mu delloo ko ndax juyoon ak sunna waaye day waxi wax moom it ñi delloo ko ko lu tax dafa juyoog sunna mu ne ba mu des kenn mooy kan mu ne illa saaxiba hada al qabr sallallahu alayhi wa sallam mu ne ba mu des boroom xabru bi ndax bam mu koy wax ma nga ci jàkka yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ne kum mën a doon ku nekk say wax dana ca am luñ dul jël ndax njuumtel doomu aadama la ba mu des yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax moom ci diine ci juum su demoon ba ci juum borom bi tabaraka wa taala moo koy gàgganti waxaat da moom imam malik lima kaana min kalaami muwaafiqan lilkitaabi wassunna fa xuduu bihi wa ma lam yuwaafiq fatrukuuh nee na lépp loo xam ne wax naa ko ngeen xool ko mu dëppoog alquran ak sunna nee na loolu jël leen ko lépp lu ma waxtam juuyoog ñaar yooyu nee na bàyyi leen ko fa kooku jaanam wàcc na de moo tax al imaamu shaafi bi day wax ne wa laqad zalla بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصواب واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن سواء السبيل الإمام الشاطبي imaam bu mag nee na ay nit tarxiis nañ ay nit tarxiis nañ ci sababu wan gannaaw dalil muy alquran ak sunna lu tax ñu wan gannaaw dalil nee na mooy sukkandiku ci ay nit yonent bi nee na mu ne waaye sama imaam nee na yonent bi nee na mu ne waaye sama sëriñ nee sax na ci alxuraan mu ne waaye lii lan lii bokkul ak li sëñ ba wax lii bokkul li boroom xam-xam ba wax ba njiit la nangam yooyu nee na ay nit réer nañ ci sababu bàyyi dalil topp ay nit nee na ba tax ñu génn siraatul mustaqim topp seen i bànneex yu ànduto ci xam-xam nee na loola réeral leen wala yaasu billah kon néewuñ bu kenn roy kenn ci loo xam ne dëgg la bu kay li sax ci alxuraan ak sunna ak yu mel noonu ki la ko jàngal di ko jëfe nekk ci gannaawam di ko jàng di ko jëfe ci moom jàppe ko sëriñ boo xam ne moo la jàngal moo la xamal loola lu baax la waaye bul dem mukk ba mu jàpp ne ba jàpp ne sëriñ bi duuti juum lu mu wax rek noonu la déedéet bu mën naa juum de mën naa nit ki mën nga ko fonk teg ko place bi nga ko war a teg li jaaru sa digganteeg moom lépp ci nga ciy taxaw waaye njuumte am na ci mbiram nga bañ koo topp ca loola te njuumteem loolu suñ mënee fexe ba mu dellu ci gannaaw loolu mooy liggén ndax kat borom xam-xam bu mag faw bu juumee dana yóbbaalew nit loolu moom lu mënta ñàkk la moo tax dañuy wax ne zallatul aalim zallatul aalam maanaam ab borom xam-xam bu tarxiisee yóbbaale mbooloo kon kooku bu tarxiisee nañ ci jàpp téye ko balaa daanu bu daanoo rek yóbbaale loolu lu ma ta bàyyi xel <coughs> ba bala ñoo génn foofu sax ñu xool ne wax dëgg yàlla moom suñ réew mi kenn ti dugg ci xool roy roy goo xam ne dafa àgg ci nag roy gu gumba gu àndatul ak xool fi mu àgg ci suñ réew mi kenn jaaduwul muy dugg ci tomb boobu ba génn ko te junjuñu li nga xam ne moom la ñuy dund su dul woon roy goo xam ne roy gu àndut ak dalil la wala roy gu àndut ak xel fan la jullit mën a nangoo ci xelam wala ci xolam ne ñaari jullit yu bokk jënd yàlla ju ñu jàmm benn yonent jenn alxuraan bokk xibla bu ñuy bokk di julli di julli jëm mën nañoo bokk nekk ci ci am réew wala ci dëkk wala léeg-léeg sax ci genn kër ñu ne weer wi feeñ na ay jullit wax ko ne gis nañ ko ci suñ bët kii xëy na man tey jii laay woor keneen ki ci wetam xëy di toggub añam ci wetam ci genn kër gi te soo ko laajee lu mu lay wax munta dàq li kiy wax waaye am na koo xam ne moom néewul weer wi feeñ na te kooku lay déglu loolu mu neex ak mu naqari mi ñu ngi koy dund ñëpp la metti ñëpp la metti waaye du noonu ñu xam ne du noonu lislaam li mu wax mooy ab jullit ci boppam bu seedee ne gis na nañ ko yoon responsabilité boobu ñëpp ànd woor bu dee koor bu dee tabaski ñëpp nañu ànd tabaski tabaski sax damay wax ne moom yi nit ñi di am problème waru ci war a bokk waru ci woon a bokk ndax li wér te wér nag jullit yi mooy bis bu nit ñi taxawee arafa béréb ba ñu tuddee arafa ca màkka ojaaj yi jóge fépp ci àdduna dem taxawi foofa ñi ne tey jii la arafa bu ca suba saa la tabaski loolu moom jullit yi war nañ koo xam xam-xam moom war na faa àgg tabaski moom benn borom xam-xam sax day wax ne jullit yi bokk na ci lii wane nag seenu seenu dellu gannaaw dëgg dëgg dëgg maanaam tabaski ci boppam ñi di ci juuyoo nee na mooy wane ne juuyoo nañ ci lépp nag yow xujaa ji jóge Sénégal dem taxaw arafa nga ne tey du bisu arafa ñu xëy di tabaski nga ne tey du tabaski sa mbokk yi kon ñoom amuñu aj taxawuñu arafa te kat nangu nga ne bis ba ñuy julli ajuma fi màkk muy ajuma tey te am na ñooñ li nekk ci seen bopp mooy saa buñ ne tey la rek bu ca ëllëg saa maanaam su màkk ne tey la bu ca ëllëg saa la ñuy door a wax tey la noonu te ajuma ji mooy ajuma ji jamono yii nu toog nii ci bisu ajuma booy préparé yow di xëy di dem ca sa juma boo di dix heures onze heures fekk na waa màkk ñu ngi julli ajuma nga waaxu dem ca sa juma yow itam julli ajuma delluwaat ci sa kër kon bisu arafa moom wax dëgg yàlla waroon naa mën a loo xam ne yee jullit yi ñoom bu problème boobu dootuñu ko mu des nag bisu koor bisu koor boobu yi saa boo xamee ne ab jullit boo xam ne xamaluñ ko dara lu bon wax nekkul faasik nekkutub kàccoor ku maandu la nee na séentu naa weer wi gis ko te fekk loola doon lu war a mën a nekk lu lu xel nangu it nag da cee am maanaam lu xel nangu mooy lan su ay ndaw na doon bis boo xam ne bisub ñaar fukk ak juróom-ñeent la di ko séentu waaye toog ba bisub ñaar fukk ak juróom-ñaar ñi koy séentu kooku xel nangu ko beneen bi itam su ay ndaw àndandoo woon yoo xam ne ñëpp ay fanweeri at ñaar fukki at ak juróom lu ko jege àndandoo nañ ci séentu weer ak góor nekk ci seen biir gu am juróom-ñett fukki at kenn gisu ko mu ne leen gis naa ko loola it nag wax dëgg xel du ko nangu anas ibnu malik radiallahu taala anhu benn bis loolu daf koo dal ñii séentu weer wi fekk booba weesu na juróom-ñett fukki at an ku gudd fan la woon radiallahu taala anhu ndax yonente bi alayhi salatu ko ko ñaanaloon ñëpp séentu weer yu mu séentu gisu gis ko moom te kenn gisu ko nit ñi xool xool gis ñu dara mu ne leen ba nga ne bi mu ko defee Shurayh boroom xam-xam bu bari ak xarala la ab àttekat la woon itam Shurayh al qaadi mu ñëw xool xef yi gis ne am na xef wu weex wu ne ci bët yu wuy lang mu daal di koy jubbanti ba mu jubbantiwaat ba mel na meloon mu ne ko xoolaatal mu xool ne ko weer wa de dem na mu ne ko amu ngoom mu ne ko mu ngoom kon léeg-léeg la bu nee weer la jaarul te fekk ña ko doon séentu gisuñu ko te mi ngi ci benn âge bi kooku jaar na bàyyi xel ne loolu yenu wut maanaa waaye su yooyu yépp dàqoo mu yenu maanaa ab jullit ne man gis naa weer wi ñëw joxe shahaadaam kooku yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nangu leen la mu wax ñu bari lañ lay wax mooy loolu mën na ko wax te fekk amul su amul nañ ko yan yan bi responsabilité bu réyee noonu ab jullit dana ko xam di ko gàddu rawatina sax nag ci kor rawatina ci kor yi jullit yi woor nga ñëw wori leen te fekk kor yi boobu responsabilité benn jullit ñemewu ko waaye su boobaa fiq ba mooy lan mooy nañ def la mu wax su waxee dëgg alhamdulillah su waxul dëgg yan baa ngi ci boppam noonu rek la ko la sharia atte mu doon lu simple loo xam ne jullit yi waroon nañ cee waroon nañ cee bennoo wallahu alam